lan nga nu mën a wax ci taxawaay bi dayo bi ak cosaan li eh, eh, auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim saddid lisaani nawwir janaani saafi amaani wa fi balaahi maa ngi sant yàlla baax di nuyu bokk julli ak bokk taalibe yi eh, di ñaan sëñ Muntaxa Mbakke sa bam yàlla yàggal ko fi lool doon ak wéram waaye di sant nag sëñ Amdi Moodu Mbend jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall ji sant Cheikh Fall Fall jooju sëñ moo deminta euh, xanaa amuk cant ci fii ngeen fekk tey di bisub cant boo xam ne bii war na jullit bu nekk ndax kaay leen tuddal ma yàlla day baat bu rëy boo xam ne bi kenn amul ak payam waaye loolu lépp nag sunu maam Cheikh Ibrahima Fall moo a loolu daa mel ne nag lun euh, mur yi noo war a laxasooy waat ndax sëñ Muntaxa sëñ Tuubaa mii fi ne kër Cheikh Ibrahima Fall jox na sunu cër ba mat sëkk ndax garaat yi mu takkal yëpp loolu war naa tax ñun ñëpp boole boole bi ak ay teggin ak warma ak nangoo liggéey ndax daraja ju toll nii moom kenn xamul ñu toll yëkkati alxuraan jébbal nu ko ndax suñ xabbaan mi nga xam yàlla dogal moo fi nag yor alxuraan ji xam ngeen ne maam Assane Fall la bu Cheikh Modou Moustapha Fall moom waaw moom moom waaw kooku jox nañu àq joxale ji alxuraan daanaka mooy lislaam beneen bi ci des itam mu dellu nu jox itam baatu ci kurlaay te borom téere yëpp dañoo wax ne wal ci kurlaay akbar tudd yàlla moo gën a màgg lépp mu dellu nu jëbal kàddu googu gër Cheikh Rafaal mu dellu itam kenn amul lu may moom di Serigne Touba ak lim nu liggéeyal ak lim nu defal mu yëkk dëkkam bu tedd bii tudde ko Touba te Touba mooy texe mu ne dénk naa ko Cheikh Rafaal kon ku ñu wax ne Cheikh Ibra moo yor caabi àjjana loolu sax tam a na ca dal kon noo ngi sant yàlla bu baax ci lii la sëñ Muntaxa defal te di ko ñaanal sax boog yàlla dolli ko wér te jàggal ko fi nag lool ndax teraanga ju toll ne ji ñun teral day gor suñ ko teral war ngaa jéem góor góorgóorlu lañ la bàkke nga mën ko xuyoo te bañ a topp ne ñeneen ñi nga na turu Baay laa rek moo la bëgg a dugal loolu daanaka amul solo li am solo mooy jëf gannaaw jëfa am solo nag nan fexe ba sëñ bi li mu bëgg lan waxam ci woon ak moom nu sàmm ko jébbal naa sa bopp àdduna ak àllaaxira loo ma digal rek danaa ko def kon léegi bu ndigal ak see da ndigal li ñun ñëpp war nañ ko mën a fanaan lii moom liggéey la boo xam ne bii bu sëñ moom taxaa waxoon ne bés bu ne bu ngeen xëyee na ngeen def lii itam kër Cheikh Fall moom faw dañ ko def kon noo ngi sant yàlla bu baax te ñaan xam naa xëy boo amee bu loo bëgg laaj lu xam naa bis bi comme ni nga ko waxee rek lépp tënku ci ndigal di feddale waa diggante maam Cheikh ak euh, sëriñam bu tedd ba mu Cheikhul Khadim Baye Fall yi wuyu si nan ñu ngi ci jëf ji ñu ngi ci taxawaay bi xam naa kaddu yi ngay tëje rek mooy ay soññe ngir ñu mën ko yóbbaloo mën a jariñu ci jëf ju sell. waaw moom day ñun taalibe yëpp laa bëgg wax kër Cheikh Ibra Fall ak kër Mbakke Mbakke yëpp laa kon kàddu gi may wax ñun ñëpp noo ko bokk sant yàlla rek lañ war a def ndax ab jaam wala ab jaambur su fekkente sa kilifa lam bëgg nga bëgg dara desatul ndax ñun buñ gore woon lépp lu si mun taxaw santaane lan seet bokk taxaw ndax noo bokk benn bëgg-bëgg bi ndox mi muy naan ci la ñu naan lal yi muy tëdd ci la ñu tëdd courant bi noo ko bokk. ventilateur yi noo ko bokk ñoo bokk ñoo bokk biir jumaa ji kon moom li mu bëgg mooy ak taalibe gi la bëgg taalibe googu nag ci la lépp nekk képp koo xam am nga ko ñàkkoo dara waaye ku ci amul dara nag amoo dara ndax ak taalibe mooy daraja ji nga xam ne fi la daraja yam ndax sëñ Muntaxa kat bëggu ta doon lenn lu may taalibe Sëriñ Tuubaa di sàkku ngërëm Sëriñ Tuubaa ñu itam loolu rek lañ lañuy sax kon bu mu wëlee bët ko àndanteeg ñun ci biir waar yi mën na maa wàcc yàlla ne day naa adduna moo gàllankooru waaye bu du woon loolu kon ci biir ci nga koy fekk woon loolu kon ci biir toogaay yi nga koy kon nit ki nag bala yàlla baake ba sa kilifa la mu bëgg nga bëgg loola la muy lekk moom ngay lekk la muy naan moom ngay naan fa mu jëm si moom ngay tëdd war na noo gore diggante boobu daal foofu laa bëgg a yem ak yow diggante boobu jërëjëf. njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ci njiitu sëñ euh, Amdi Modou Mbenda taxaw nañ kon lan nga mën a wax diggante ndigal ci euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Touba tey da ko firndeelaat lan nga yan kàddu nga ciy wax. kon nag li ma ci mën a wax mooy diggante sëñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak taalibe ak Pastef ak jëfee ndigal ca mayu tere moom rek moo ci ne kon képp koo xam ne kii nekk nga nekk nga xeetam na nga jëfee ndigal loolu na nga moytu tere ca jëfee ndigal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 jotee kon maa ngi sant yàlla sant yonent bi sant sëñ Basi sant sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal yàlla na fi yàgg ci ànd ak wér yàlla na fi yàgg ci ànd ak wér man sëñ Fallu maa ko di jabaatu sëñ Basiru Géy moom Cheikh Adama Géy kon yàlla na fi yàgg ci ànd ak wér. tey bi yan kàddu nga ciy wax. bésu tey bii ko yàgg fekkee ca ko tal képp ku fi de lu baax yàlla nañ ko yàgg fekkee ca di ko tal. kon ñun ñun ñu ngi ko séddee ñun waa kër Cheikh Adama Gueye yàlla nañu ko yàgg a ba lépp lu ñu lépp lu